ñoo ngi dalal tey euh, sëñ bi Djibril Gning bokk ci plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections euh, bokk tamit ci GRADEC tey euh, ñu wax ci parrainage liste yi ñu recalé jàll nañ ci leneen ñeneen ñi nag jàll nañu tey am ñi nga xam ne ñoo ngi ñaxtu ne amul mbir mi leerul daal ci critères yi ñu tànnee sélection bi lan lañ ci mën a jàpp justement waaw loolu liñ ci mën a jàpp euh, euh, lu lu simple la. Mm-hmm. ah il faut dire que euh, ñaari problème moo ci moo ci am. Mm-hmm. problème bi ñuy wax problème mu doublon. Mm-hmm. te code électoral wax ko wax ci lu leer mooy maanaam électeur bu nekk benn liste la war a parrainer donc bu fekkee ne dafa parrainer liste yu bëri duñ ko dindil duñ ko wàññil ki nga xam ne moo jiitu waaye ña ca topp ñoom lañ koy wàññil mm-hmm. donc ñooñu buñ leen ko wàññeelee wàññilee loolu dafay néewal dison seen lim bi ñu am bi ñu war a am pour mën a jàll ci parrainage bi. Mm-hmm. alors loolu moo indi ñenn ñi biñ leen dindilee doublon yooyu électeurs yooyu euh, ñu dem ba wàcc euh, lim bi ñu waroon a am. ñu ne leen donc dem leen ngeen wutiwaat ay yeneen électeurs pour mottali seen lim pour àgg ci lim bi nga xam ne moom lañ leen laaj. Mhm. waaye am na ñeneen ñoo xam ne euh, dafa am critères yoo xam ne dañ ko waroon matal aussi. Mhm. mooy li mel ne taayu taayu électeur bi. Euh, ndax dañu bañ par exemple nga dem rek jël fichier électoral bi di remplir. Mhm. xam nga taayu électeur bi balaa nga am il faut nga jël carte d'identité électeur bi. Mhm. loolu dañu bañ nit ñi utiliser données personnelles nit ñi comme ça. Mhm. donc ku la jox carte d'identité am certainement mooy que d'accord na pour parrainer la. Mhm. alors taayu électeur bi euh, am na aussi euh, bu fekkee ne nekku ci wala dañ nga ci juum loolu aussi euh, daf lay wàññil ay parrain parrain boobu du baax. bu fekkee ne aussi parrain bi. dafa nekk plusieurs fois ci liste bi dañu gis par exemple Mamadou Ndiaye euh, ñu gis ko cent fois ci liste bi. Mhm. benn rek moo ciy valable. alors yéen ca des yëpp dañ la koy wàññi. alors ñooñu yooyu critères yooyu moom la ñuy dàqee euh, nit ñi. alors léegi nag euh, ñële ñi ma njëkk wax. Mhm. dañ leen di permettre tout de suite pour ñu dem. Euh, euh, corrigé. Mhm. waaye ñii nga xam ne ñoom laa mujj wax euh, en général bon duñ leen wax pour ñu dem régulariser. Mhm. alors c'est pourquoi ñun société civile ñu ne ñooñu aussi nga xam ne ñoo mujjee nga xam ne mën nañu am njuumte ci par exemple taayu électeur bi. Mhm. ci critères yooyu wala. Euh, électeur bi dafa parrainé liste bi plusieurs fois. Mhm. erreur yooyu. Mhm. ñoom itam ñu may leen ñu mën a dellu corriger ko. ndax looloo waral ngeen euh, tàmbali sax wala euh, di yëgle ne da ngeen di amal médiation ngir nag nit ñi ñu xoolaat yenn liste ñu rejeté yi. waaw loolu loolu loolu moo ko loolu moo ko waral. alors dañ dañu yaakaar ne quinze parce que bi ñu jotee candidat yëpp vingt cinq la ñu woon bi ñu defee tirage au sort bi ñaar fukk ak juróom liste moo fa nekkoon mm-hmm. mujj gi quinze moo ci desoon mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo déposé mm-hmm. alors quinze ñoo déposé xam nga quinze bëriwul ndax euh, élection wu 2017 yi euh, quarante sept liste la woon te Sénégal organisé na ko organisation bu mucc ay génn ci kon nag quinze liste mënoon nañu sax jël quinze yëpp organiser élection yi te du am benn benn problème tey ñoo ngi wax huit alors waaw ñoo wax huit parce que justement pour le moment euh, six ñoo ñoo ñoo jàll. Mm-hmm. mu am euh, euh, set yoo xam ne dañ leen recaler potentiellement. Mm-hmm. alors euh, am ñaar yoo xam ne am kenn koo xam ne dañ ko wax mu dem régulariser. d'accord alors loolu moo tax ñuy wax ñuy wax kii mais bu fekkee ne xëy na. Euh, ñaar ñi nga xam ne wax nañ leen ñu waaw six moo jàll. bu hmm. fekkee ne ñaar ñi nga xam ne dañu war a régulariser ñoo ëpp chance ñooñu bu ñu régulariser loolu moo tax certainement nit ñi di wax huit. Hmm. mais compter wu ñu sept yële ñun nag sept yooyu la ñu wax ne war nañ leen may chance aussi n'est-ce pas ñu accéder ci seen dossier xam yan motif lañ lañ leen rejeté euh, ñu may leen aussi ñu dem corriger ko. ci ndax loi bi ndax loi bi interdire ko. ci loolu sax monsieur ndax mat na tey ngeen euh, taxaw un euh, sentinelle di waxtaan na ngir ñu xoolaat euh, list yooyu le wala sax ñu bàyyi leen ñu defarwaat bu dee dañoo appliquer code électorale ndax loi bi am na sens tey. waaw xam nga loolu code électoral bi waxu ci te dañuy wax ne juriste yi dañuy wax ne lépp loo xam ne bi loi terewu ko. Mhm. mën nañu jàpp ne loi may na ko. Mhm. alors loolu moo waral sax administration électorale bi dafa tiire ay leçons hmm. def ay jàngat ci ni nga xam ne noonu la ñu doxalee woon parrainage bi deux mille dix neuf hmm. mu indi ay coppite par exemple euh, dépassement yi bu amaan dépassement deux mille dix neuf dañ lay éliminer comme kaawu gàkku euh, euh, par exemple bu fekkee ne minima régionaux yi par exemple euh, daf ci am ñoo xam ne dañu war a nekk ci biir région mm ah ñu nekk ñu gis leen ci yeneen région mhm. dañ koy wàññi fële éliminer la mhm. ah, euh, gisoon nañu aussi ci erreur matérielle yi effectivement bu fekkee ne bii ci sa tur au lieu de faati ñu def faatu mhm. euh, yooyu yu mel noonu njuumte yooyu dañu daan éliminer yooyu yëpp nag administration électorale cette fois si def ne loolu élimination yooyu jaaduwul nañu def par exemple pour corriger erreur matérielle yi benn système boo xam ne système de recherche multicritère la. Mhm. boo xam ne dañuy seet ba xam ne yow mii yow la même bu fekkee ne dañoo def faati au lieu de faatu bu ñu xoolee date de naissance bi xool sa turu ndey ak sa turu baay xool yeneen éléments yi. Mhm. danañ xam ne yow mii la. d'accord ñu bàyyi la ci. Mhm. est-ce que tu as régionaux yi également. ñu ne bu fekkee da ngaa nekk ci telle région au lieu nga nekk ci sa région dañ lay dindi fee simplement yóbbu la ci sa région. hum mhm. ah. ak euh, dépassement yi aussi ñu ne bu ñu accès ci dépassement yi dépassement yi tam jaraltul ñuy éliminer parce que ëppal na lañ ko laaj. tey bu sa ñi nga maam benn coow fi nekk muy yeewi askan wi euh, boobaak léegi ñoo ngi rumandaat ne listam dañ ko rejeté ndax euh, ñàkk sàmmonteeg parité euh, donte direction des élections àddoogu ci officiellement mais bon le bruit court comme on dit est-ce que tey yoon boobule may na ko ñoom wala sax may na yeewi askan wi mu rectifier waat li jëm ci. ni mu defee investiture yi. waaw loolu euh, euh, li euh, commission bi nga xam ne moom mooy jot dossier yi di leen càmbar commission bi àggagul ci loolu. bi mu nekk fii ba fukki fan ak juróom-ñaar fukki fan ak juróom. Mhm. ak fukki fan ak juróom-ñaar commission bi ci liggéey bi mu nekk mooy liggéeyu càmbar affaire parrainage yi mhm. alors. Euh, parrainage yi xam naa ñoom fukki fan ak juróom la ñuy pare. Mhm. waaye euh, li ma bëgg a xamal aussi candidat yi mooy que candidat boo xam ne tu n'es pas satisfait à partir du quinze bu ñu paree. Mhm. Hmm, mhm. euh, et même même à partir de maintenant sax mën nga saisir le conseil constitutionnel. ah parce que ci réewu droit état de droit ñu nekk. ne man dañu rejeter sama liste ndax nangam ki nangam nangam et cetera mais ça suppose nga dem seeti li tax ñu rejeter sa liste. bu ko defee le conseil constitutionnel a euh, quarante huit heures pour se prononcer rapidement waaye mm-hmm. loolu moo tax ñi di del délai boobu pour càmbar dossier parrainage yi pour aussi rég ñi nga xam ne wax nañ leen ñu dem régulariser ñu xaar leen ñu ñëw ñu càmbaraat ko loolu moo tax muy dem ba le quinze mm-hmm. ba la dix sept mm-hmm. à partir du dix sept maintenant la ñuy dugg ci euh, contrôle juridique des dossiers alors controle juridique bu ñu duggee ci loolu nag la ñuy xool affaire parité waaw est-ce que euh, euh, euh, liste sangam respecté na parité buñ ci duggee nag ku respecté wul parité parité dañ lay éliminer te buñ ci duggee également ci contrôle boobu alors euh, euh, dootuloo mën a soppi ce dossier comme remplacer ku la neex doo ko mën ñeenti remplacement rek lañ la may. loolu mm-hmm. la code électoral bi may. mooy koo xam ne dafa décédé. Mm-hmm. koo xam ne il est inéligible c'est-à-dire moom kenn mënu ko élire ku mel ne par exemple koo xam da nga ko tabb te mu nekk magistrat mm-hmm. wala nga tabb ko te nekk euh, liggéey bi mu yor àndul ak ñu koy élire mm-hmm. wala code électoral mayu ko mu mu mu doon candidat waaw may nañ la nga remplacer ko mm. euh, may nañ la tam pièce boo xam ne dafa périmé nga dem uti beneen pièce boo xam ne baax na mm-hmm. indi ko may nañ la tam bu amee erreur matérielle ci sa état civil wala dara. Mhm. lool tam may nañ la nga corriger ko lu weesu ñeent yooyu. Mhm. Euh, may ñu la nga changer ordre d'investiture bi ah wala ngay dugal keneen wala ngay retranché keneen. loolu tontu na suñu laajtu désistement bi ñu jàll ci euh, beneen bi soxal benn bokk yaakaar tey euh, tamit euh, gannaaw xibaar yi ñoo ngi invoqué jurisprudence Malick Gakou wax ne bennoo ñoom tey dañoo joxe ay parrain yu ëpp lañ leen doon laaj ndax bu ñu sukkandikoo ci récépissé bi nga xam ne moom moo fës jamono ji déposé nañ lu toll ci cinquante cinq mille trois cent vingt huit parrainage soit. benn électeur bu yokku ci max euh, seuil maximal bi ñu laajte euh, bi code électoral bi laajte euh, justement tey li ni mel ban commentaire nga ci def. xam nga <clears throat> dama la wax sànq ne la administration électorale dafa ja def jàngat ci élection yi ni mu. ni ñu organiser woon élection yële passé présidentielle deux mille dix neuf ni ñu organiser woon parrainage bi. Mhm. alors bi mu ko defee jàngat nag mu daal di ci Euh, tirer ay leçons. Uh-huh. Euh, def ay propositions euh, parti politique yi liste yi nga xam ne présenté nañu liste ak société civile. Mm-hmm. bokk na ci proposition yooyu alors bu fekkee ni bii danga indi parrain yu ëpp ñu bañ laa éliminer comme li ñu ko defee woon en deux mille dix neuf mais ñu def yëf yi ba nga xam ne machine bi day taxaw ci li nga xam ne. moom lañ la laaj. Mhm. mais ñu bañ laa éliminer bi ñu ko proposé nag amoon nañ ci ñun ñëpp consensus maanaam ñëpp àndoon nañ ci déggoo ci. Mhm. alors loolu est-ce que euh, euh, mën na euh, mën na mën nañu ko opposer c'est opposable. Mhm. à la juri jurisprudence. gàkku bi amoon deux mille dix neuf. wala déet kooku nag ñi nga xam ne ñoom la seen xel màcc ci. mbiru yoon mbiru droit ñoom ñoo war a àtte loolu. ñu lay jaajëfal bu baax a baax seen sëñ bi Djibril Gningue. voilà jërëjëf euh, soxna Elisabeth. maa ngi leen di gërëm di leen sant. merci beaucoup.